internautes yu habitim bitim réew TV salaamaaleykum seen doom seen xarit Sissama Réma moo dellu siwaat ak yéen si seen biir émission ma commune ma commune di émission ba nga xamante ni lépp lu soxal sen gox moo ko tax a jóg tey nag ñu ñëw fii ci Tëngéej Guy Mouride ci mouvement d'action ànd defar suñu gox servir Rufisque mouvement bi nag seen président di monsieur Sega Ndoye tey nag ñu ñëw fii ci marché Arafat fas yéene leen andil fii ay action sociale ci box sociale yi nga xamantene ni nii seen mouvement bi le tam na diko def xana rek ñu ànd ak yéen wan leen la nga xamantene ni nii mouvement ADESGO tam na diko def fi ci Rufisque gis alaykum wa alaykum salaam. ma ngi sant bu baax. naka nga gisee mouvement ADESGO bu wa sant yàlla rek diko rafet lu bu baax ndax lu melni ni coronavirus mu am ci askan bi yëpp mu xalaat jóg ànd ak dooleem ànd ak ñi mu àndal. rawatina mu am ndaw loo xamante ni daa bokk ci moom te bokk ci marché Arafat muy suñu mbokk taalube di Mamadou Dafe e, di tailleur nekk ci marché bi xam ko muy kóllëreem lu mel ni am ci réew mi mu ne ko bul fàtte sama waa marché kon bu ñëwee indi ay jumtukaay ne nañ ci xeex feebar bi ñun duñu mën a def lu sant ko gërëm ko rafetlu ko ndax bàyyi nañu xel nit nag buy def dara di la bàyyi xel bëgg na ku ko bàyyi xel waaw lu rafet la ci askan wi tawat la boo xamante ni nii ñëpp su war a jóg képp ku yàlla dénk dara war nga mën a wuyu ci woote président parce que lii euh, sama sëriñ sama yaakaar sëñ Muntaxa moo ci njëkk dugal loxoom kon ku ci dugal sa loxo rek man dama koy rafetlu waaw wasalaam waaw kon euh, sëñ bi ñuy rafetlu kàddu yi bu baax waaye tey di 4 avril di suñu fête d'indépendance euh, le mouvement bi nga xamante ne nii mouvement d'action dafa ànd defar suñu gox servir Rufisque choisir li nga xamante ne nii mooy bésu indépendance am bés ba nga xamante ne nii bu doon jaam la si lañ ko goreel ah mu ñëw fii ci Arafat Tëngéej ñëw fas yéene leen a jàppale ci feebar bi nga xamante ne nii dugg suñu réew yow en tant que euh, jëwriñu marché bi nan nga gisee loolu. waaw dellu sant yàlla bu baax ndax lu day ni 4 avril muy bis bi nga xamante ni nii si la Sénégal der bu ñuul moom boppam lu mel ni am ci réew mi dañuy sant yàlla ndax lii du fi guléet euh, la fi mag ñu baax ñi ñaanoon mu nekk ci réew mi loolu moo ñu téye ba tey rawatine nag suñu feet indépendance mu taamu ci Tëngéej mu bokk ci histoire Sénégal aussi ndax Rufisque la ñu wax te Rufisque bu ñuy lim communes yi buñ ko ci génni kon du ñu mën a def lu dul sant ko rek ndax euh, indépendance moom moom sa bopp la te nit ku nekk war nga mën a fexe noo moomee sa bopp te dara mayeeku lu dul ak njub nag gannaaw ba nga xamante ne nii moom nañ suñu bopp fii ci Tëngéej tey nag di suñu fête indépendance waaye lii di jàngoro coronavirus dab ñu si suñu biir te kenn ñaanu ko yàlla moo agsil boppam lan ngay ñaax waa Tëngéej ngeen ñu fagaru ci feebar boobu waaw xanaa dellu ci digle yi nga xamante ni nii suñuy njiitu réew jiit digal nañu ko ndax euh, ndigal loo xamante ni nii présidence de la république moo ci njëkk a dugal di wane naka la koy defee na ngay raxaso ni ngay sa bop kon bu ñëwé ba 4 avril mu ñëw ñu wara a àndandoo ak mom ci loolu du ñu def lu dul rafetlu ko euh, alaaji bari wa ñu koy wax Baye Fall di rafetlu bu baax it action bi nga xamanteni ni mom la suñu doomu ndey suñu mbokk defal Mamadou dafé indi ko fi ndax ñun Mamadou dafé la xam Mamadou dafé bu waxé ba mom mu ñëw fi dañuy sante Mamadou dafé ndax Mamadou dafé mi sékk ak ba am ak mom ba diko tuddé doom kon xam na ne moom am nag mbaax waaye ñu ngi koy sant ndax li ñu bokk di xeex mooy ni ma ko waxee rek du politique action la boo xamante ni askan bi ñoo ko yitewoo mu jóg jëm ci askan bi ñu ngi koy sant bu baax nag jërëjëf Baye Fall cant ak ngërëm ñeel na la waaw xanaa rek euh, ñu del si suñu yaay waaye suñu xarit euh, di délégué marché bi daa mel ni xanaa rek ñu bàyyi ko ak kàddu yi mu wax ñu moom lan mooy xalaatam ci li nga xamante ne ni mooy coronavirus bi waaye action bi nga xamante ne ni di jëm ci wàllu social waa mouvement bi nga xamante ne ñooy ànd defar suñu gox waaye ànd suqali tëngéej euh, fii ci marché Arafat maman na nga def maa ngi fi alhamdulilah macha allah ça va ñu ngi kontaan macha allah di leen gërëm ci acte bii ngeen def nii. parce que lii ku ko indi ci marché bi defaloo ko marché bi kese da nga ko defal tëngéej gi yëpp parce que marché ñëpp a fiy daje macha allah kontaan nañ ci act bi macha allah daal alhamdulilah sant yàlla. gannaaw ba nga xamante ne ni président Séga Ndoye dugal na loxoom fii ci marché bi waaye tamit di leen di leen ñaax ngir ngeen gën a fagaru ci feebar bi la lan ngay wax waa marché bi. waaw kon président Séga rek. wan nañu yoon Séga nag ma nag moom sax xamantewuñu kon déjà nañu pousse politique muy fële Séga damay dégg rumeur am mu ne na ñu ku ci nekk na nga ñëw jàpp ñu defar Tëngéej acte bi mu def nii wane na ko acte bi mu def bi mu def nii wane na ko parce que mënoon na xaar sax ñu def démarche ñu def suñu délégation ñëw fa mais ki nga xam ne moo ko fi nekkal kooku dafa dem wax ak moom rek mu indi moyen yi ñëw indi ñu ko dañ ko ci sant di ko ci gërëm defalu ko kenn population Tëngéej ñëpp la ko defal marché moom bu ñu waxee marché ñëpp a fiy daje kon nag defalu ko kenn dañuy sant rek di gërëm macha allah feebar bi li ñu digle tamit ku ci nekk ñax ci sa bopp ñax ci sa njaboot parce que lii du pour kenn kese pour ñëpp la macha allah yàlla na ci yàlla def jàmm. Séga doy mën naa ne la gloire yàlla amul moroom benn la fi. jërëjëf gloire amul morom benn la fi déggoo ma ne la man Séga xaw ma ko damay dégg turu Séga di dégg ay socialam mosuma gisanteeg Séga du dëgg nit ku nag dan nga koy seedal ci jikkoom. duñ ko seedeel ci mbuba mi muy sol ci jikkoom kese lañ ko seedeel lii tax na lii mu def nii mën na tax ne ñeme nañ seegandoo yi lii mu tax nii mën na tax moom leeral nañu yoon bi du dëgg ku ko dégguloon tey jii wala xamoo seegandoo yi tey dégg nga ko déggoo li ma wax sànq mënoon na xaar ñun ñu def démarche mais xaaru ko kii moo fa ñëw dem wax ak moom mu indi moyens yi léegi la ko indi muy surprise ci ñëpp bu ñu ko wax bu ñu ko yëgoon trente minutes kon boo leen ñëwee beneen mbooloo ngeen fi fekk mais nag léegi la ñi ñëw woose ma ma daal di déplacé wu ñëw alhamdulilah sant yàlla ñu ngi koy ñaanal mënoon na ko mën tamit te du ko def du dëgg mais lii da lay wóor na ay moyen am la jël defee ko nii kon dañ koy sant di ko gërëm ci kattanu yàlla yàlla na ko yàlla kattanal may ko wér ak wér le ci darajey Seydunaa Mohamed li mu sumb tamit yàlla na yegg alhamdulilah jërëjëf solo si kàddu yi am na solo waaye nag ñu am fii ba léegi ki nga xamante ne nii mooy présidente ci mouvement ànd defar suñu gox waaye mouvement servir le Rufisque donc euh, maman na nga maa ngi sant naka yi tey présidente mouvement ànd defar waaw man maay présidente mouvement ànd defar suñu gox servir Rufisque bu tam si seegandooy euh, lan nga ñu mën a wax tey ci tam si seegandooy waaw Euh, bu ñu leen di wax si moom sax def naa duñ fi jóge parce que Séga Ndoye euh, dëgg naa euh, feebar bi dafa ñëw lëmbe àddina mais moom benn avant que feebar bi di ñëw moom dafa jóg ci ay nitam jóg ci tëngeej tëngeej moo ko ñor askanam rek moo ko ñor parce que dégg nga léegi ñi fi wax ki ñii kenn seexalu leen lem seegandooy nit ñi li ñuy dundee social bi seegandooy di def rek defe naa ne dafa jéggi sax dayoo kon kooku noonu bu feebar bii ñëwee tey dal ci suñu kaw mu taxaw xaaru kenn ku ko ci woo mu génn ay propre moyen amul fenn fooy dem tey ci Tëngéej seega def lu mel ni li mu defee ci marché Arafat waa émission ma commune nii lay demee saa su nekk mbokk ak xarit yi ñu seetaan fii ci bitim réew TV ba tey euh, ñu tey si suñu Fête indépendance bu ñé fête indépendance nak moy euh, bës ba nga xamante ne ni ca la ci goralee bu doon euh, ay jaam lañu. Mm. tay ngeen choisir bës bi la lan mo waral ngeen choisir 4 avril pour servir fisc waaye tamit duggal seen ay action sociale ci marché yi ndax nak euh, du arafaan ngeen bujjee waaw jar nañ Guy mourid ak yeneen marché yi ci Tëngéej tay gis nañ fa seen lox waaw xam nga 4 avril fête nationale fête la pour Sénégal lépp. heure bii daana fekk ku nekk am ci loo nekk di feete xam nga di di di di bëggee li nga xamante ne mooy bés bi ñu moomee suñu bopp waaye lii nii ma wax nii Séga lu jiitu 4 avril moom nee na bu nekk feet la ci moom ci askanam bës bu nekk day taxaw pour jàppale askanam askanam rek moo ko ñor kon maman ñu ngi lay jaajëfal waaye di la wax rek eh, nga ñaax sa commune waaye nga ñaax population Tëngéej ba nga xamante ne nii ñoo lay seetaan te li ngeen def nii yëpp pour bëgg seen kaaraange moom moo ko waral. waaw di wax ne feebar bi du caaxaan feebar bi lu am la dëgg la naam tey jii da gis eh, tey ci Tëngéej am na ñu naan man dama koy dégg rek xaw ma mais c'est vrai ça existe nañu fagaru nañu raxas loxo yi nañu téye xale yi nañu toog ci suñu kër yi marché yi mënul ñàkk.

incha allah loolu daal la amoon lu may ñaax ci population Tëngéej. jërëjëf maman xanaa rek nga fàttali lii ñi ngay seetaan euh, fii ci télévision Bitim Réew TV sa tur ak sa sant. waaw man maay Awa Djigo présidente du mouvement ànd defar suñu gox di wax stop Covid 19. jërëjëf maman. seetaan seen émission ma commune ni ñu leen ko diggee woon noonu lañu leen ko defalee mouvement ànd defar suñu gox bu Massaer euh, bu. niñ leen ko diggé won non lañ ko défé mouvement ànd defar suñu gox bu ségandoy ba légui mu ngi ci ay action sociale yi nga xamante ni mom lay jëflanté ak askanam waye mom lay jëflante ak communam actuellement ni may waxé ak yéen nak ñu ngi fi ci marché bu Guy Mouride xana rek ñu bàyyi suñu mama yi nga xamante ni mom lañ fi fekk ñu wax li nga xamante ni mom la leen ségandoy defal fi ci marché bi assalamu alaykum assalamu alaykum mbooloo mi moo ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla di ñaanal yàlla seega li mu bëgg moo ko xam yàlla ka yàlla defal ndax seega du du marché bi rek seega ku wasin seega loo xam nga sa ku am dëj seega loo xam nga sa ku feebar seega loo xam nga sa lu yëngatu si dëkk bi rek loxo seegam nga si daaw mars bi suukal li fi dugal mars bi daj corona bii seega xaaru si dara corona bi dafa jóg rek seega jóg gis nga bool yi nii mbaar mu ne boola nga si ngoon nag ñun xam ne nooy waa marché guy mu li mu defal nii gis nañu ko bu baax ku ñëw nag ni marché bi def si rek si seeg nga jaare woon nag mënu kaa gërëm dañu koy sant di ko ñaanal yàlla dëkk bi nag lu mu foog a moo ko xam yàlla nag ko yàlla defal nun daal ni mu nu defal nii dina xam ne nun mu ko defal ay góor piir lanu nag ay góor piir lanu mu saa boo xamee ne bi jóg soxla na bu neexee yàlla yonte ba nit ñi dañu topp si ginnaaw mënuñu kaa gërëm nag dañu koy ñaanal yàlla séegandooy li mu bëgg moo ko xam yàlla nag ko yàlla defal seega yàlla na ko yàlla may wér seega yàlla na ko yàlla lafal cat seega yàlla na ko yàlla suturaal nun daal suñuy xool sedd na daal sedd na kontaan nañu ndax du lii rek moom si dëkk bi moom mu ngi bay mu ngi bay toujours si dëkk bi mhm. mu ngi bay rek moom moo nit ñi rek mhm. sonnul taayiwul. moom nag yàlla bu yàlla sonn si moom yàlla bu yàlla taay si moom. waa marché Guy Marius kontaan nañu si seega. waaw yaa booy uh, tey di si suñu fête indépendance uh, muy muy bés bi nga xamante ne nii si la si la ñu moomee suñu bopp ñun nit ku ñuul séegandoo taamu ci bésu avril boobu di suñu feetu indépendance ñëw sargal leen waaye tamit euh, li nga xamante ne ni mooy jàngoro ji nga xam ne dugg na fii ci suñu réew te kenn woowu ko muy coronavirus waaye mu di leen ci ñaax di si ñaax askanam di si ñaax communauté Tëngéej bi yëpp loolu maman na nga ko gisee. noo ngi ciy góorgóorlu bu baax incha allah bu neexee yàlla seega moom lu mu sombi rek daanu ko naan seega lu mu sombi daanu ko naan ndaxte su fi deful woon dara ci marché bi daa def démb tey soog a ñëw li muy def ci biir kër yi di ko def ci mouvement yi di ko def ci daayira yi man mii di présidente de daayira Baye Talla Dieng la mu saf ko ko ma ca ko xam nga maa la wax lii seega sagal nu teral na nu dañu ne nag waxkat gi nag dañ ne doom ju jigéen jàngaanewul nday jaay sëriñam waaye doom ju góor it jàngaanewul nday jaay sëriñam seega mii Mati Ndoye yaayam mhm. te nag ba mu hmm. daa tan taxaw mëti da taxaw ci guy mouride gi mhm. def lu ne nag jàppale da ko sage-femme d'État la woon bari na fi dom yo nga xani hmm. ñi ngi ci mbolo mi taxaw ci loxom lañ jaar macha allah na wacc ba paré mhm. koñ bi hmm. nit matu dem feug ko mu salat bu otom, tal jauh, asistela, ak yow assister la man mi wax ak yow jaar na ci bon nak lu mu fi sombi rek daañu ko naan yal ko yàlla lafal cat noo ngi koy sant non koy ñaanal waaye ñëpp noo ngi koy ñaanal li mu bëgg yal na ko ko yàlla defal ci kattanu yàlla ak mbaaxu Mouhamed jërë ngeen jëf. jaajëf mama waaye rek euh, di wax ñi nga xamante ne nii ba tey ñoo nekk fii ci Tëngéej teraanga gii Séga Ndoye def fii ci marché bu Guy Mouride euh, ñu am fi suñu beneen yaay tamit xanaa rek ñu bàyyee leen ak moom ba tey ak euh, waa télévision Bitim Réew TV mu wax ñu nan la gisee li nga xamante ne Séga dugal na ko si seen marché bi la salaamaaleykum yaa booy. <laughs> ñoo ngi leen di sant di leen gërëm ndax teraanga ji fi seeg ak def gis nañ ko ndax corona bi dafa dugg suñu dëkk bi ñu benn yoon dafa jog indi teraangaam indi ñu suñu marché bi man bu wacce sama auto bala may jaay jeun dina raxasu ba paré légui ni bi paré pare bamay laata ñibbi dina raxasu ba paré suma duggé sama kër bala ma dugg sama néeg dina raxasu ba paré suma sama yére teg fale kon nak limi ngi defal ni dafa rëy lool lu fu way def rek ci mom la ko gissé ndax indi nañ fi teraanga waaye ci mom lañ ko gissé koor buñu woré bala fi kenn am sukor, dina fi indi suukaru koor defaral ñu ba mu baax kon nak ñong koy ñaanal lu mu man ren bi déwee ne yalla na man lu ko ñong koy ñaan ci barke Seydina Muhammad mu yokk ba yëg ko ci barke Seydina Muhammad Mohamed ñoo ngi koy ñaanal yal na yàlla jàppale ko jàppale mboolem jullit nag suñu xol sedd na guy ci moom nag lii ñu defal nii rëy torop torop torop torop koy utiliser bu baax nag mhm. ku ci wàcc bala ngaa dem sa place da nga taxaw raxasu ba set mhm. kon daal yaa booy ma la déggee mu mel ni ak séegandooy moom marché yi jarul la tëj jarul la yi moom mhm. bu mu ci xalaat dara jërut a tiit jërut a sëj mm. ndax bu ñu nee cëpp su oto dañuy taxaw raxasu ba set mm-hmm. soo ko dem su nga taabal man léegi nii bi may wàcc nii mm-hmm. maa ngi doon jégg tali bi a ma taxaw ma ko jaral mm-hmm. damaa jégg tali bay ñibbee samay bagage xadi woo ma ni ma ñëwal ndax soxla nañ la ci taxawaay bi ma waññukuwaat damaa raxas samay loxo ba mu set kon nag ñu ngi koy ñaanal yokku ba yëg ko ci barke Seydina Muhammad lu mu man ren rek bu déwénee yal na man lu ko ëpp nañ ko dégg fu sori njottam ci barke Seydina Muhammad tamit yéen la xale yi di fekk sa ci marché bi lan nga leen di conseiller ak corona bi nga xamanteni ne dugg sa suñu biir ci ak ciet xale yi buñu ñu dañ lan leen dem leen raxasu ba set bala ngeen ñëw ci biir marché bi dañuy raxasu ba set soog a buñu génn dañuy raxasu soog a ñibbi ñu ngi ciy daw suñu waar ñoo ngi leen di ñaanal ñoo ngi li mu def ni reyna torop suñun bu mu ci xalaat dara ci marché yi ndax ñi ngi koy utiliser bu baax lim ñu defar gis nañ ko bu baax kon nag bu ci xalaat dara bu ci tir dara marché yi mom bu ci kenn xalaat dara ndax dinañ raxasu niñ ko waxe dinañ ko dinañ ko jël ba mu mat sëkk suñu matuwaay ba mu mat sëkk rek kon nag bu mu ci xalaat dara li ñu ci war yëpp ñu ngi koy def ñoo ngi koy ñaanal yokk ba yëg ko rek jërëjëf maman xanaa rek nga fàttali ñu tur bi man maam Faali Fall laa tudd dëkk guy Mourid waaw jërëjëf ma Faali di madame Diagne nag taxi kon kon mbokk ak xarit yi ñuy seetaan fii ci télévision waa bitim réew TV li moo nekkoon ba tey seen émission ma commune tey nag ñu àndoon mouvement ànd defar suñu gox ak président Séga Ndoye Covid 19 ak léegi léegi nag da ngeen di raxasu ñu jël leen peese. déedéet dafa am tuuti lu ma fàtte lu ma ñor buy ko. am loo fàtte. dafa am lu ma lu ma fàtte lu ma ñor. loo fàtte dañu ne si marché bi di jaay. Mhm. amuñu fu ñu dugg tuur ndox. suñu duus ba ne ne dañ ko upp mhm. bu ñu bëggee tuur ndox ci daal kër yi la ñuy wala ci kër yi la ñuy daw di dugg. Euh, may ko mu jël loolu. may ko mu jël lolu dina gaaw ah dañu nek ci marché bi di jaay mhm. amuñ fu ñu dugg tour ndox mhm. buñu ñu tour ndox dañu daw dugg ci pàkk kërign bo la ñu dugg ci kër yi mhm. lolu mom kuñu ki dimbali rek ñu jël douche baa nga dañ ko tejj amuñu ñu benn njariñ ci marché bi kon nak ñong ngi leen di ñaan gën dimbale ñu si amuñu fu ñu dugg tour ndox fi ci marché guuy ci biir marché guuy bi mi douche baa nga ne dañ tejj amuñu ñu benn njariñ kon nak ñong ngi leen di ñaan lu ngeen ci mëna a rek te yalla tax gën dimbale ñu ndax soxla nañ ko torop ndax jigen bu nekkee ci marché il faut mu bëgg jog tour ndox daw dugg ci pàkk kërign bo la mu daw dugg dugg ci kër mhm, loolu ñoo ngi leen ci ñaan nu ngeen ñu ci mën a dimbalee da ngeen dimbalee ñu ko te yàlla tax yàlla baax na waaw yàlla baax Tëngéej yëpp ñu ngi lay dégg waaye aussi tamit euh, population bu Tëngéej waaye maire Tëngéej bàyyi na xel ci loolu nga wax ok jërë ngeen jëf marché Guy Mouride am fi nag euh, ki nga xamante ne nii moo représenté les jeunes fii ci marché Guy Mouride toogal fi tamit séegandooy ba tey bismillah soxna si na nga tudd man Ndeye Diouf laa tudd Ndeye Diouf na nga def. maa ngi fi. naka marché guy mënul bi baa ngi nii rek. ba liggéey baa ngi dox. waa mi ngi dox ndànk-ndànk rek. lan nga gisee seegandooy Ndoye li mu dugal ci seen marché bi ak euh, li nga prévention yi nga xamante ne nii mu ngi leen koy sant waa yéen waa guy ñun ñooy jigéeni Cheikh Ndoye avant mhm. lii boolewuñu ak Cheikh mhm. marché bi du lii rek la fi indi lii moo mujjee ci lu mu fi indi. Mhm. de chaque jour mu ngi fi indi ay teraangaam. ak yu baaxam lépp lu mu yaakaar ne. yeneen dëkk yi dinañ ko am indil nañu ko fii ci suñu marché bi. Mhm. ñu koy ñaanal yàlla yokk ba yëg ko. ñoo seegandoo yi ca kaw ca kanam ci lu baax ndax fii Guy Mouride képp ku falu ci ci ci ci mairie. Mhm. wala présidentiel waa Guy Mouride ñoo la fal. Mhm. léegi tey nag ñun am nañ ku nekk suñu biir dëkk mhm. incha allah dañ koy jàppale fépp fu mu bëgg a yegg mhm. mu yeggale ko ndax dañoo bëgg dañoo bëgg réussite ci suñu dëkk bi mhm. dëkk bi lañ bëgg changement te doomu dëkk bi moo ko mën a changé te gëm naa ni seegandooy dinañ ko changé kon daal yow man su ma la déggee ma sœur mu mel ni yéen waa Guy Mouride pare ngeen pour fal ki nga xamante ne ni mooy président Séga Ndoye seen maire dëkk incha allah soobee yàlla dañ koy yéegal ba ca mairie ba yéegal ko taxawal ko. Hmm? bras droit loolu lañ bëgg ba ah, dina am incha allah. ok jërëjëf. seegandoo <laughs> yi moo fi ne tey moo fi ne ëllëg moom la ñuy àndal tey moom la ñuy àndal ëllëg. <laughs> loolu neex na ma baax sunu njaboot ñëpp ànd na noog moom. waaw soobee yàlla moom la na ko